ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar yéen ñu ngi si Dakar Buzz tey nag ñu ngi fii ci Thiaroye sur Mer seet si famille bi nga xamante ne ni ñoom la ndogal bu métti bi dal seen kaw di ñetti membre famille ñetti membre yi nga xamante ne ñoo bokk si même famille bi te ñàkk seen bakkan ci géej gi ñoo ñoo waral tey suñu tànk tey fii si Thiaroye sur Mer ñu ñëw xool si ñi nga xamante ne ni ñooy famille bi waxtaan nag ñoom si leen mel ki ma toogal ni kenn la si famille bi moom laay njëkk waxtaanal sëñ bi maa ngi lay nuyu. lay fay. tur bi naka la. Modou njaay laa tudd. nga si ñett ñi nga xamante ne nii ñoo ñàkk seen bakkan si géej. ki ci mag Malick Ndiaye mag la ci man ñoo bokk benn pap yaayam yar ma tudd na ma doom ju am 27 ans moom moo demoon géej ak doomam bu tudd Limaamu njaay ak suñu beneen mbokk bu tudd Modou Mar ñoo fi jóge ajjuma après 16 heures 17 heures dem géej waroon na ñibbisi gisuñu leen ba app ci guddi gi ci lañu commencé alerte su suñu biir waaw ah, waaw parce que bu ñuy dem généralement ñaari façon géej moo am am na bu nga xam ne ñoom bi ñu doon pratiquer da ngay jël sa mbaal nga ser ko ci biir géej da nga koy ser heure yi le lendemain nga dem seddi ko boo fi fekkee poisson comme ni ñuy wax ci waxi libu rek nga yebbi sa mbaal jël sa jën boo dee seraat nga seraat sinon nga rentré waat tu feras le même processus donc ñoom dañ départ fii dans la l'après-midi dem pour sel seen mbaal boo seree sa mbaal ba pare nga koy dem sedd ji ser ak seddi la ñuy wax daal malheureusement heure bi ñu waroon a ne heure boobu waroon nañ fe fekk fekku leen fi yooyu bo amee toujours aussi famille bi dañ naan ah ñi demoon géej ñëwuñu bi loolu amee au plan local mool yi nga xamante ni ñu am nañ association ñoom ñoo jëkk lancé kii bi nu tuddati alerte bi ñoom ñoo ñoom tamit ñoo dem à leur recherche malheureusement gisuñu leen euh, côté Wakaam la ñu demoon côté Wakaam lañ demoon foofu parce que euh, Wakaam la ñu dem am na fu ñuy tudde ball foofu mooy <coughs> muy ñaari géej ñoo am géej bi féete côté géejawaay dañuy wax ne góor géej bu góor la ak géej bi nga xam ne moo commencé ci boori Cap Manuel jëm ba euh, Ziguinchor ñu tudde ko góoru jigéen ñaari géej yi fa ñuy jonction di am lébu def ko tudde euh, banque bi léeg-léeg sax dans leur jargon ñu tudde ko Sirat parce que c'est une zone très difficile à traverser hauteur boobu daal ci li ñu yaakaar foofu la ñu amee accident en essayant traverser zone boobu donc bi ñu demee le vendre le kii nu mu tuddati le vendredi le samedi ñuy recherché gisuñu leen ba le dimanche ñu ne ñu y a boo xamante ni apparaître na ci autoru Wakaam waaw quand alerte boobu am gendarmerie Euh, les sapeurs-pompiers le procureur naturellement def nañ les constats d'usage jël corps bi yóbbu ko au niveau de la morgue de Dantec ñu nit ñu envoyé une délégation au niveau de la famille pour identification des corps il s'est avéré que bi ñu demee kooru Malikan Ndiaye la d'ailleurs moom rek la ñu gisagul sax yeneen ñaari corps yi gisuñu leen moom bi ñu gisee kooram on l'a enterré le même jour londi waaw <clears throat> fi mu ne nag ñu ngi xaar mais nangu nañu dogalu yàlla boobu moom kenn duñ ci génn parce que nag euh, jaam bu fekkoon ne daf ñu génnoon àddina ci leneen lu dul daan doole bu boobaa day nekk gàcce ci ñun yàlla suturaal nañu moom liggéey la xamoon il avait cinquante neuf ans liggéey la xam moom moo moo ko waral comme ci ci ci waaram la dee nag ah, da nga koy sant borom bi ñun philosophie boobu la ñu la ñu la ñu jàngate événement bi am di si sant yàlla lool di sant yool di ñaan yàlla ah njaboot la fi wacc njaboot googu ñu ñaan yàlla moom rek moo mën a sàmm am na fi benn benn soxna la fi bàyyi wàcc na fi lu mat juróom ñaari doom juróom benn naa ngi fi ak ki loolu la fi am keneen ki seen xarit bi ñu àndaloon sax il s'est marié bi defe naa matul weer mooy toayu troisième personne bi à part doomam moom moom maalikan bi muy dem taawam la àndal taawam la bu tudd li mu njaay waaw noonu la demee ah biñ leen gisul ba tey ji limaamu amoon am na soxna limaamu am na ñett ñeenti doom na ñeenti doom moom mais loolu la yàlla dogal daal loolu yàlla dogal philosophie boobu daal lañu si lañu siy jàppe parce que nag dee ci géej miin nañ ko lool mais problème bi ci am mooy lu tax récurrence bi am lan moo tax à ce qu'il paraît semaine bii cas yu mel ni vingt quatre morts am na ci te ñoom ñu ci ëpp en haute mer la ñu gaañoo jàngat bi ñu si jàngat ñun xam nga ban bu jëkkoon récurrence laa la wax kon phénomène bi at yi la commencé am mësul am daa nga dégg ku dee si géej bala nga ko déggaat kenn xamul fii maintenant chaque semaine cas boo mel dina te ñan ñooy de ce sont les pêcheurs artisanaux artisanaux artisanaux bu jëkkoon boo dawee fii deux kilomètres trois kilomètres rek da nga daan seet sa mbaal comme ñoom liñ ñu defi woon mais jën amatul si côte sénégalais yi xam nga lu tax amatul état du Sénégal accord de pêche yi mu signé ah, accord de pêche yi mu signé jox autorisation bateau fi pêcheur pêcheur traditionnel yi waroon euh, artisanaux yi waroon di mbaale wala ñu fay ser seen gaal bateau yi di ñëw bi fii di mbaal jën bi mais ñoom il faut que ñu dem en haute maire loolu mooy mën a expliquer référence euh, récurence u dee yu bëri amee euh, amuñu limite mais ils sont obligés dañuy dem recherche ji pitance lu ñu dundale seen njaboot parce que bëgguñoo sàcc bëgguñoo dem barsax barsax aussi bëgguñu ko def mais bu fekkee ne euh, ressources halieutiques yu Sénégal état du Sénégal ñàkk na fayda ba signé accord yoo xamante ni ak union européenne nag bateau chinois yeeg bateau grec yeeg ku nekk ñëw di mbaal mais lan moo fiy desee pêche artisanale bi sa boobu pêche artisanale bi amatu dara amatuñu ko moo tax ils sont obligés dem ba en haute mer et ça c'est un danger pour eux donc bu fekkee ne dañuy wax résumé bi mooy ay gor lañu woon yoo xamante ne dañoo war a dundal seen njaboot dem di mbaali ndok am si biir géej ñu faatu fa gis nañ ci kenn denca nañu ko démb information que ne am na benn corps bu nekk euh, port autonome bu Dakar bu ñu foofu euh, tombé dafa waral ay gaaf rek ñun aussi bi ñu déggee ne am na un corps boo xam ne feeñ na au niveau du port envoyé nañ fa une délégation ñu ne ñu corps boobu mu nga hôpital Dantec heureusement heure période bi ñuy wax bi ñu fa corps boobuy dem on avait une délégation bu fa toog doon xaar autopsie bi pare ñooñu ni dem identifier le corps bi nga xam ne ramassé nañ ko au niveau. di port ce n'est ni l'un ni du ci kenn si ñaar ñi nga xam ne feeñaguñu kon daal li ñuy jàpp daal bu dee ñun suñu famille koor benn ñett lañu woon benn koor feeñ na denc nañ ko ñaanal nañ ko yàlla démb saraxal nañ ko di ñaan yàlla yàlla na yàlla yërëm ko yërëm ñëpp en résumé looloo fi am ñoom seen responsabilité bu dee côté français bi nag je dirais que ne ce qui s'est passé Le mal qui a atteint notre famille a atteint pas mal de famille pêcheurs dans ce pays et dernièrement. Malikan, moi je m'appelle Ndiaye. Malikan, c'est mon grand frère. Il avait 59 ans. Il était marié, père de sept enfants, dont l'un était avec lui dans la pirogue. C'était son fils aîné, il s'appelait Limamou, qui était marié aussi, qui a, une, qui a eu quatre enfants. Il y avait un troisième qui était un parent qui était avec eux, qui s'appelait Maudoumar, et qui venait tout juste de se marier, ça fait même pas un mois. Ils se sont, ont eu un accident en pleine en mer, au niveau de Wakam. Leur pirogue s'est fracassée. Nous, on a vu que des débris de pirogue et une partie de leur filet. Le moteur et les occupants, on les a pas vus. Depuis que ce constat a été fait, nous, nous avons rendu grâce à Dieu pour dire qu'ils sont tous décédés. Et après ce constat, nous, sommes, nous, nous avons prié Dieu pour qu'il nous fasse au moins, pour qu'il nous montre leur corps. Le corps de Malik Ndiaye est paris on l'a retrouvé, on, euh, on l'a enterré depuis le lundi. Hier, on a fait les sacrifices d'usage comme il le fallait. Le reste, on prie Dieu pour que au moins qu'on puisse voir les deux autres corps et on s'en est tenu à ça. Euh, au niveau étatique, rien n'a été fait. Personnellement, quand ça s'est produit et qu'on m'a appelé, j'ai appelé la direction de la Marine nationale. En vain, personne n'a décroché. Personne n'a décroché. Donc, La direction de la marine nationale ne nous a pas été d'une certaine utilité parce qu'on ne pouvait pas les, avoir au téléphone. On nous a donné un autre numéro de téléphone de l'Océanium. J'ai eu une dame qui m'a donné un numéro et je pense qu'au moins au niveau de l'Océanium, nous, le rendons, nous, le, nous les remercions parce qu'au moins, eux, ils nous ont écoutés. Et je pense, je ne sais pas, mais la voix que j'ai entendue ressemble bien à celle de Ali Haïdar, ce qui est important. Océanium, on les remercie parce que au moins ils nous ont écoutés. Le reste maintenant, c'est de situer les responsabilités. Comment situer les responsabilités L'État du Sénégal, depuis hier je le dis, est à 95% responsable de toutes ces morts qui ont lieu en haute mer et surtout pour les pêcheurs traditionnels, pour la pêche artisanale. Ah parce que c'est eux qui ont signé les accords. C'est eux qui poussent maintenant les pêcheurs artisanaux à aller mourir en, en haute mer. C'est un danger pour eux. S'il n'y avait pas ces accords, si les ressources halieutiques du Sénégal n'étaient pas pillées à cause de ces accords, les pêcheurs artisanaux n'allaient pas aller en haute mer, ils resteraient toujours là où euh, ils avaient l'habitude de pêcher. Ça, c'est la responsabilité entière de l'État. Il y a une seconde responsabilité, moi je veux être toujours objectif. Les pêcheurs eux-mêmes, ils sont responsables à du fait que ils ne portent pas leur gilet. Et j'ai dit, le, le, port du gilet, le gilet en tant que tel n'est pas une garantie que tu vas pas mourir en mer. mais au moins c'est une garantie qu'on pourra trouver ton corps. Maintenant, ce pas facile pour les pêcheurs euh, artisanaux. Les pirogues, le, euh, ils dépensent beaucoup d'argent pour les pirogues. Ils dépensent beaucoup d'argent pour, euh, pour les moteurs. Ils dépensent beaucoup d'argent pour le carburant qui fait fonctionner ces moteurs. L'État du Sénégal ne fait absolument rien du tout. Moi, j'ai dit hier, que pour ce qui concerne nous, notre famille, dans ce cas, nous n'attendons absolument, absolument, je dis absolument, rien, rien de cet état. De cet état. Et ça a commencé avec le régime socialiste, ses accords de pêche. Ça a continué avec le régime de Ablaïwad. Et ça s'est empiré avec le régime de Macky Sall. Voilà la situation. C'est la responsabilité entière de l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal, à cause de ces accords, qui pousse les pêcheurs artisanaux à aller en haute mer. Avec, parce qu'en haute mer, les pirogues que nous avons ici, c'est des pirogues de fortune. Si ce n'était pas trop loin, ça marche. Mais aller en, en haute mer avec certains pirogues, c'est un risque. C'est la responsabilité de l'État du Sénégal qui est engagée. Et là, je le dis en, en, en toute responsabilité. Et j'ai dit hier, j'ai dit hier et je l'assumerai. Je ne sais dans ce pays, il y a eu des émeutes. Parce que la coupe était pleine. La coupe était pleine. La jeunesse sénégalaise est sortie. Les pêcheurs du Sénégal n'ont jamais marché. mais ça commence à devenir c'est trop trop c'est combien chaque semaine chaque semaine il a des morts et ils vont te dire qu'est-ce qu'ils vont dire on va dire que non le ministre de la pêche va faire un déplacement au niveau des familles euh, des défunts des défunts de famille de façon pour la pour, pour la nôtre il peut ne pas venir on n'a pas besoin de l'argent du Sénégal de ce pays on n'a pas besoin de leur riz on n'a pas besoin de leur huile ce qu'on a besoin de l'État du Sénégal, c'est de revoir ces accords pour que les pêcheurs artisanaux puissent pêcher sans risquer leur vie. Ça, c'est ce qu'on veut. mais xaar ba nga xamante ni nit dee na ngay ñëw di lambar lambari naan da nga fi indi ceeb ak diwli nag nangam ak nangam nañu seet seen accord de pêche bés bu ñu ko réviser ba nga xamante ni les pêcheurs artisanaux dinañ si trouver le leur leur gagne-pain mais looloo amoon waaye xaar ba ku déedee nana ministre de l'Agriculture il paraîtrait que le ministre de la pêche va faire une des visites dana dajale fii man na fee bañ a ñëw wala bu fi ñëwee bu fi ñëwee du fi dégg lu ko neex parce que ñun lijjantiwuñu que seen xol moo neexul si moom moo tax bëgg leen ko. non non non waaw ah, ñun on suñu xol naqariwul ci kenn ñun ay dañoo gëm yàlla dañoo gëm yàlla suñu xol fi mu ne allah amuñu benn benn benn doo gis ci ñun benn frustration parce qu'ils sont morts ah non non non c'est naturel c'était leur destin état Sénégal na dem debi na xool na xool euh, les accords de pêche ba pare yoo xamante ni dina tax moolu Sénégal yi nga xam ne pêche artisanale la ñuy def ñu yem fii ñu wa daan yem mais def tourne pour lan bu ñëwee lum ñuy wax a ah, sigil leen digale sigil sa ministre de la pêche Alioune Ndoye lébu la comme ñun bu fekkee day day tourné nee leen bu mu ñëw caaro yi géej wala bu fi ñëwee dana dégg li ñu koy wax maa ko wax en toute responsabilité en tant que responsable au niveau de cette famille on n'a pas besoin de sa présence ici même Macky Sall le président de la République on n'a pas besoin de lui ñoom ñooy kilifa yi nañu dem xool ñoom li ñu signé européens yi ba nga xamante ni moo yàq géej gi loolay am problème loolu looluy fulla ji c'est eux qui attirent les pêcheurs en haute maire mais est-ce que pirogue yi léegi aussi baaxati na comme auparavant. pirogue yi mosu ñoo bon pirogue yi ñoo yi fi nekkoon fi nekkaat rek amuñu benn problème gaali yi lii fi nekkoon suñuy bàyyi moom lañ doon baale suñuy bàyyi gaal yi lañ daan baale yii sax ñoo gën parce que yii ñoo gën a yaatu ñoo gën a dëgër. bu jëkkoon da daan gis mag moo xam ne moom rek lay yor gaalam mook doomam dem ser seddi ji bu ko ree ser gaal yi amuñu benn sikka buñ leen di sikk dafa fekk ne rek fa ñuy dem moo sori te daawuñ fa dem moom daal état bi bu fekkee ne bëgg na jàmm na régler problème mu mool yi mool yi marché ñu mool yi defuñu dara il na demande ka gañe ka gagner leur pain sàccuñu waxuñu lu dëgg urujuñu seen am nañu am nañu ñoom environnement mool boo xamante ne macha allah am nañu solidarité bu am seen biir waaye nag état nag moom moo la ñu jox ñoom gouvernants yi ñoom la ñu woteel ñoom la ñu dénk réew mi ñoom bu ñu bu ñu bu ñu fayiree à leur mission ah te loo wax ñu bëgg ñu bëgg euh, di sikk di sikk mool yi mool yi dañoo sàcc ñoo sàccuñu c'est l'état du Sénégal qui est irresponsable c'est sa responsabilité qui est engagée dans toutes ces morts dernièrement en haute mer parce que nag franchement parler les côtes les ressources halieutiques de ce pays sont pillées et c'est ce que ce sont les les qui ont signé les accords non c'est pas ça disons-nous la vérité et eh, ban njariñ la ministère de la pêche amal fi boo demee ba jugeel fii bu ngeen demee ngeen dem mbuur bu ngeen demee ngeen dem Joal dem leen Ziguinchor amul benn mool bu ngeen di gis bu con bu kontaan sur la politique bi nga xamante ni au niveau du ministre l'État du Sénégal à travers son ministère de la pêche moom lay def pour nga am moteur problème la kon ñoom ban njariñ lañ ñoom jaay géej gi ba pare dimbali woo mool yi loolu la ñu def loolu daal. en substance, c'était la déclaration que j'avais affaire faire et pour euh, aussi remercier les pêcheurs, l'association des pêcheurs du Sénégal ku ci nekk yónnee na fi ndaw pour massawu ak ñoom ñooñu recevoir les associations des pêcheurs du Sénégal ñu jaalee suñu moom la ñu gën a kontaan la présence du ministre de la pêche ici chez on ne veut pas de lui. ñaari koor yi nga xamante ne ñoo des est-ce que ñu ngi leen di wërandi. ñun di wëruñu leen ñun duñ leen wër bu ñu leen yàlla wanee daal ñu jël leen suulu leen l'état du Sénégal yëg na catastrophe bi defuñu ci dara la marine nationale n'a absolument rien fait loolu maa ko wax soxlawuñ seen dimbal parce que ñun. ki ñuy xaar daal mooy bu fekkee ne gis nañ leen danañ leen suul bu ñu leen gisul ñun do nangu nañu dogal bi yàlla dogal si ñun. parce que du gannaa pour que nit réer fii ci géej ay mbokkaam gisuñu ko non c'est pas la première fois dans cette maison am nañu grand frère xam ne depuis 1985 la demoon géej kenn gisu ko fii fii fii si même famille bi kon ñoom buñ ñun koor yi buñ leen gisee buñ leen gisul benn la ñu pare lañu ñun daal sant nañ suñu yàlla sant nañu yàlla doyloo nañu ko li mu dogal si ñun état lu mu def ak lu ñu deful yoon nekku ci waaye ñun daal wax dëgg yàlla nous ne sommes pas tristes et nous n'attendons absolument rien de l'État du Sénégal loolu leer na li nga wax léegi mais par rapport ak euh, njaboot yi nga xamante ne nii moom lañ bàyyi papa ji ak euh, doom ji ak seen ay soxna ak ki nga xamante ne nii il vient tout justement de se marier comme ni nga ko waxee ñooñu naka la ñu dundee situation ah métti na métti na boo leen demee yaayam mu ngi si biir métti na wax dëgg yàlla métti na moom yaayam métti na te dafa métti man miy wax ci ak yow man dama di dama di dama di responsable mais bu ma demee sama kër ba toog ba wéet xam naa ne lii metti na et j'en pleure dama ciy jooy waxe buñ la jiitalee ci famille da ngay essayer nekk à di jéem a surmonter di góorgóorlu rek waaye de metti na metti na si yaayam mu ngi fi metti na si soxnaam metti na si ay doomam metti na si limaam mi nga xamante ni aussi euh, doomam la woon ay doomam yu daw metti na mais am nañ nag ay mbokk yu nga xamante ni mën nañ leen a consoler ñun daal socialement ni ñuy dund fii ci dëkku lébu bii te dëkku bu yëpp mooy boo xasee ba am métit yu mel nii toute la famille tout le monde ku ci nekk ñëw compatir dafay wàññi lu bëri ci yow ba pare nag fekk nag ñu gëm kii ci kaw yàlla lay dogalam ak sababam nangu nañu ko gëm nañu ko doom yi ñu fi wàcc man bu ma nekkoon milliardaire manuma leen a yor kenn moo leen mën a yor te doy nañu xam nga mooy lan dénk nañ leen yàlla doom yi dénk nañu leen yàlla ku leen ku dul yàlla mënul leen mënul dara ci ñoom nous rendons grâce à Dieu nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a décidé pour son décret par rapport à Malick Ndiaye son fils et Modou Mar maintenant pour ses enfants et tous nous le ça c'est la responsabilité de Dieu c'est Dieu qui va guider leur pas nañu ko yàlla. yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. masawu d'abord lu si am. ñu ko yàlla boole. na lan nga si ñoom. ah ku mag kii maa jur waaw moom Malikan Ndiaye waaw. waajur bu jigéenu Malikan di maamu doomam ji li doom waaw. ñu dégg li nga xamante ne nii mooy xibaar bu nag waaw ñett lañu ñu dégg xibaar bu nakari bi nga xamante ne am na ci ñu demoon napp ji ñibbisi wuñ naka ngeen ko yëgee bés boobu naka la. lu métti rek ndox àjjuma jooju bi ñu añee ba pare la fobu moog doomam doom ji ne ma maam de maa ngi dem géej ma ne ko demoon te ñu ba demee ñaanal ma ñu am jën naa la wutal jën bu baax. loo fiiriire ak lu wala may nga te may ree moom fii ndax doom jooju moom daf daf maa man dong nga nag maa ko mën a waxloo di ka tooñ ma ne ko demal te ñëw ak jàmm waaw papaam ma ne maa ngi dem géej ma ne ko demal waaye kenn ki moom xam naa fële la fa boo waaw loolu la dem ñëw ci samedi ji si su waxtu moroon teer ñëwul jabaram ñëw taxu fi ni ma man day maalikat ba tey ñëwul ma ne ah loolu mbaadu seen mbaali dañoo yàqu ah ndekete ñu ngi woote mbokk yaa ngi wootee ka lii ñu ñëw ne léegi feeñ na mu nga feeñee xaw ma fu mu feeñ sax du wakaam waaw ne feeñ na sa wakaam teer na foofu ma ne ka fita bu ñëwee ba foofu def fita ma ko fa yóbbu mu mu dee ndax ku ñemeñ coona la ku ñemeñ toon na la te liggéey rek la xam ndax seen papa loolu leen jàngaloon ci tool yi la ñu nekkoon di bay ci seen suuf di bay bu fajaree bàyyam seen bàyyi yee leen leen dem leen tool roose yu ñu dem roose bu ñu wàccee ñu ñëw jàng lu mu teel teel dañuy wàcc waxtu jàng école ñu ñëw jàng école waaw ah, léegi nag ba nga yàggee gouvernement bi ñu jël sunuy suuf amul lu ñu liggéey amuñu lu ñu liggéeyee ay ñuy dem si géej gi di faraatu rek loolu dong la waaw mosul ñëw nag na ma yaay aw ma dépasse mosuma sas dara lu mu am moo ko moo ko moo boppam ah da doon nappi da doon nappi waaw bu seede da doon nappi géej waaw ba nappee ñëw añ ba pare bu ñu jaayee bu ñëwee mu añ ba pare delluwaat mu doom mu doomam waaw ndax am na beneen doom bu doon daam dem waaye da kaa fekk mu sibbiru demul waaw yàlla boolewu ko ci waaw lu dem léegi daal ñàkkati fu ñu béy moom moo leen ndax ndax seen baay sax daawul dem fii géej waaye bu amulee foo béy jël nañu sa suuf fooy béyee hmm? gisuñu kenn nag kenn seetunu booba tey ñu ñenn ñaa ngi ñaan ñaa ngi si eh, tefes gi gisuñu kenn gisuñu gouvernement bu dugg gisuñu keneen bu dugg kenn seetuñu waaw. leex na yaay booy eh, boo ñu leen indil seede si sa doom ji Malick ak sa sët gi Limamou yenn eh, genre nit la ñu woon. yenn saar nit ñi ku am fayda la nag kenn yabu ko liggéey rek la xam nit mësula dugg sama nii bi ni ma Malick na ma fay wala yoreel na ma dara. ndax jom la leen seen baay amee jom la leen yore ba ñu màgg ndax seen papa sax am na ku ko ma sax woo ne que diwoon liggéey mu ne man tubaab mosu maa fay mënu maa fay ndax dañu daan bay ca Pikine foofu dend ak terminal bi mooy sunu tool léegi nag bu ñu jëlee suuf si ndax ñun dañ daan toog di bay sunu su bu ñoree man ma dem kees am ñaari ñaari weer di jaay bu ñëwee indi suñuy koppar ñu di tabax suñuy néeg di si dunda ah léegi nag la daan dunde bu ñu ko jëlee yàlla ak yonent ba léegi ñu yaakaar géej gi ah nu ñuy def ba ñëw kenn taxawul fii ne ñu massa ci gouvernement bi kenn taxul te xanaa maire bi lu fi xew léeg-léeg mooy ñëw fii seetnu waaw loolu la rek ah ñu ngi koy métti kay ndax ñoom lañu fi teg waroon nañoo yebal kenn sax xam ndax du mu demee xanaa yéen a yéen yéen a fi dugg ak génn rek waaw wala ñëw yabal gouvernement bi yabal kenn ne dem leen seetal nu dëkk sàngam waaw te caare yàlla dogal na sax bu sama doom gune góor yi amuñu benn problème dugg nu ci xeex du bala nga kaa xam wootee ñëw ba nga dugg si kër dëgg amuñu xeex seen seen liggéey lañu konte konte wuñu dara lu leen yàlla may ñu jël lu ñu amul toog waaw ñun duñu seetaan rek rek ñu ñuy seetaan de gouvernement bi yebal fi kenn maire bi daal la fi ñëw dinu seet. déggee aussi sa biir wax lii yëpp daa mel ni rek dund gu métti gi moom moo ko sabab. waaw dund gu métti gi rek dund gu métti na mu tax xale góor yi sonn war dimbali sa yaay war dimbali say loolu say say jigéen dagam ñu ngi si kër gi. te loolu amoo ko te rus ngaa ñaan sa yaay wala nga rus sa ñaan sa jigéen ah li mu dafa am jom de du ñu dugg si dara moom mi maalikat mii mosula yoru kayit ne police laa jóge mos ah mosuma kaa gis hmm? déedéet sama taaw sama taaw a ngi <laughs> ni waaye bu dee taaw bu góor bi mu nga ne le hmm, kooku tamit dafa bu yàggul la gaañu sama ñetteel bii ci at mii yàlla teg ma ka këlem nga ànd ak euh, Macky Sall syndicaliste la jigéen kii sol baxa bi marinière bi moo ci tegu ma di ko muñ loo yàlla na xam ne lépp yàlla moo ma ka teg damay muñ nag ndax ba ma yàlla ba ma ka yàlla di jox tàgguwu moo tax bu koy jël du ma tool tàggu ah waa dañu war di dimbali xale yi amuñu lu gaal gu baax seen doole eggu fi amuñu dara te boo boo amee dara du na te boo bëggee ñu wateel la ñu di la wateel boo bëggee leneen ah te yow kenn du la seet te ngeen aju samedi ba léegi ñu ngi ciw tiis di togg ak a yekk suñuy mbokk ñëw duñu dimbali lébu dafa am jom gisoo kenn métti na métti na de métti de bu jëkkoon ba nga daan denc sa alal wala denc sa lam boo jaayee jaay waaye ci ñi jaay nañu ba amatuñu lu ñu takk ndax ñàkk gi réew mi am noonu la rek.